di leen gërëm di leen santa di leen ñaanal tànka yi ngeen taxaw gis nañ ko jigéen ñaa ngi nii ñoom ñëpp ñëw nañ góor ñi nag ñu ngi bugg a dellu gannaaw te waruñoo dellu gannaaw ngir Banjul gi suñ Banjul da ñun ñu daan nga ci poto poto bi nawet noor punda tey Adama Baro génnee nañu si mu ngi nii fooy dox doxal bu njëkk ba booy dox di pakatalu daalay di daajeeku sànka yi di uh, xar lii yëpp dal na fi nit ñi ñuy muñ rek ba ñu am Adama Baro Adama Baro ñëw ne moom daal Banjul te Banjul gis nañ ko ñu ñëpp xam naa ne kenn nekku fi di nelew te kuy nelew ah na nga dem ca tan ba nga nelewee fa waaw parce que nit ñi eewu nañ nit ñi nelewuñ waa Banjul dañ war a jóg dañ war a taxaw ñu taxawal Adama Baro ñëpp xaru ci gis ne Adama Barrow la nekk daa am Adama Barrow la suñ amee Adama Barrow dina gën a gis jëm kanam waaw am na lum éem pour réew mi kii bi moo nekk ci réew mi mu ne for 20 mu ngi Banjul gis na ni Banjul mel xam na ni Banjul mel buga na waa Banjul soppa na waa Banjul nopp na waa Banjul yëpp bàyyiwul kenn muy góor muy jigéen jigéen ñi nag ñoom leen jiital ñoo ñu jur ñoo jur ñëpp yéen a amee lépp mu pare leen boor bu nekk bon bu leen parelee ñun tam wala ñoo taxaw eh, eh, eh, pare leen kontaan nañ trop ngeen ñëw ñuy waxtaan mbiri Adama Barrow fii na ñëpp jóg ñu taxaw gisuma benn waa Banjul buy dellu gannaaw ci affaire yi Adama Barrow parce que ku nekk gis na liggéey bi ci biir Banjul fii gis nañ liggéey bi nga xam ne mu ngi ko def ci dex gi loolu yëpp nit ñi gis nañ ko bu leen foog ne na rek la wadde ganga boro ngu kontaan ci li Adama Barrow di def ci dex gi bon jóg leen ñu ñëpp ñu taxaw ñu taxaw Adama Barrow mu am second term gën liggéey Banjul gën liggéey Gambia mu jëm kanam ñu ngi leen a gërëm na di leen sant bu baax a baax a baax a baax waaw ah, maa ngi nuyu mistake ba maa ngi nuyu eh, commune si ñi nga xam ne high table bi ñi nga xam ne ca dëgg dëgg ñoom lañ tànn taxawal leen fi bon du dara lu moo ñu toppa ci seen gannaaw dégg seen digal def li nga xam ne moom lañ buga réew mi suñu réew la suñ leen taxawee ñun ñëpp réew mi dina dem kanam dina naat dinañ gis ñun ñëpp suñ mbir baax waaw mu ne yuut si yuut si pareel na leen bon na yuut si yëpp jóg ku ci am ah, eh, eh, eh, birth certificate nga dem nga uti ID card boo jogee si ID card bu eh, eh, élection di jot si dinañ joxe voters card ñëpp am voters card te buñ ko sànni fenn mooy ci Adama Barrow waaw waaw waaw bu ganeen daal ñun ñëpp ñu taxaw bu baax a baax a baax ndik Assane Faye gis naay tànkaam ci lu munti nekk dinañu ba ci man waxtaan koo man moo Ousseynou bàyyi wuñ ma waaw dañoo ñëw di ma wax ci kaw liñ nekka may leen cee ñaanal ak ñi ci toog yëpp ñi ci bokk yëpp di leen ñaanal mu jéem kanam rek bu dara dellu gannaaw na leen taaw suñ tànka ay tànka yu dëgër a dëgër a dëgër pour suñu suñu réew mi spécial yi Banjul waa Banjul nañ leen dajale nit ñi waxtaan ak ñoom goo mën a kenn dina fi ñàkk a jom ne yaa nga uti feneen pour Adama Baro waaw Baro rek la nañ ñu taaw ci Baro nañ leen ñu sànni suñ kàddu yi Baro nañ leen fu ñoo waxtaan ñu waxtaan mbiri Baro ngir Barrow lim paree réew mi lim pareel sakatement Banjul ñun ñëpp war nañ koo gis war nañ koo xam ndoorte gaa ngi nii egga nguñ ci ending bi nag te dinañ fa egga jóg leen ngeen taxaw taxaw bu baax a baax a baax a baax ñuy def jàmm tey waxtaan di déggoo buñ xuloo buñ xeex buñ werante buñ buggee nañ taxaw tànka yu dëgër gis ne suñ Banjul bi dem na kanam gis ne Gambie yëpp dem na kanam su soobee yàlla yonent ba nga leen a gërëm di leen sant di leen ñaanal fu ñu ootee rek jóg leen ngeen ñëw boo leen ñëwee di ngeen dégg lu neex di ngeen am lu baax jëm kanam am ci barke yonent bi yal nañu yàlla jàppale sallallahu alayhi wa